bisimilahi rahmaani rahim mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ginnaaw ba nu leen nuyoo di leen ziara di leen ndokkele ci euh, bis bu màgg bi nga xam ne moo ñu fi dajale mu tollook euh, juróom-benn fan ci weeru février ñuy màggal euh, ubbite gi nga xamante ni Cheikh Mamadou Mountakha mi ñuy ñaanal fan wu gudd ak gu wér ci naal bu rëy bi nga xamante ni sumboon na ko ànd ko ak murid yi te yàlla dogal ñu war ko ubbi war koo daloo. muy xew-xew boo xamante ni xew-xew diine la xew-xew lislaam la waaye xew-xew yoonu murid la di euh, xew-xew boo xamante ni dafay mandargaal xam-xam ak tolluwaay wi nga xamante ni Cheikhul Khadim radiallahu anhu moom la amoon Cheikh Amadou Muntaha nag euh, mu bokkoon ci ay naalam ubbi daara joo xamante ni daaray euh, cheikhul xadim la muy complexe boo xamante ni euh, gis ngeen tey ji ni mu demee ni mbooloo mi wax dëgg yàlla fenn fu nekk ñi ngi fa jógee ñëw ngir fekkee si dalo gi nga xamante ni Cheikh mun Mountakha euh, mi ngi koy daloo xew-xew bu bi di mu jàmmaawu cheikhul xadim di complexe bi loolu nag tax na mbooloo mi fenn fu nekk ñi ngi fay bàyyi ko di ñëw waaye nag ku ne am mbooloo ni berne rawatina ci yoonu murit berne yooyu nag euh, tax na euh, ñu doxantu ba ci waañ yi yenn ci ay waañ yi nga xamante ni taxawal nañ ko fi waaye itam ci bernde yi kenn mënut a wax bernde te tudduloo café euh, ci yoon wi mu doon loo xamante ni dafa bokk ci teraanga yi ndax kenn ku nekk xam na ne wàccuwaay wi nga xam ne kafe am na ko ci yoon wi ba tax na itam dara desul ci ci wàllu wàccaay wi ñu ñëw fii ci wenn waañ woo xamante ni wu ràññeeku la waañu soxna maam Issa ahlu café di waañ woo xamante ni euh, xew-xew yu bëree bëri ci xew-xew diine yi rawatina xew-xew yoon wi dañ cay nemmeeku taxawaay yu am solo yi nga xam ne soxna si ak waa këram ànd nañ ko te nag ñu fekk si euh, jëwriñ sëriñ Abdoul Ahad Dieye di kenn ci euh, jëwriñ yi soxna maam isa nga xamante ni taxawaayam rafet na lool ngir am ay leerlu yoo xamante ne dañ ko leerlu ci moom waaye jëm ci taxawaay bi nga xam ne daayira bi taxaw na ko ci xew-xew bi muy taxawaay yu am solo gis nañ ne ba ñu xëyee ba léegi ñi ngi bernde di wër di joxe ay ndekki di joxe ay xéwal sëñ Blaat ci laaj bi ñuy xam ne moom la ñuy njëkki ak yow ci tënk rek euh, nan ngeen waajalee bis bi ak euh, tolluwaay bi nga xamante ni toll na fii ci jamono ji nga xamante ni euh, ñi ngi àddu mbokk itam dañuy teewlu fenn fu nekk ci biir àdduna bi. Cheikh Abdoul Ahad maa ngi lay nuyu baax di la ziar di jëlee itam suñu liyoo ci soxna su tedd si nga tudd léegi muy soxna maam Issa Mbacke ahlu café waaye di nuyoo tam ci turu fédération Ahlu Café yëpp euh, ñi nekk ci biir réew mi ak ñi nekk bitim réew euh, di ñaanal nag Cheikh mun Mountakha yàlla na sunu borom yàggal ko fi te may ko wér sumb bii mu sumb te mu nekkoon mébétu Serigne Touba nekkoon ñaanu Serigne Touba gu sunu borom nangu mu eggale ko tey loolu mbégte lislaam bépp la waaye mbégte yoonu murid la waaye mbégte maamam Cheikhul Khadim la kon nag képp ko fekkee war nga sant yàlla bu baax a baax a baax. Euh, boo ko fekkee ba pare nag ñu am lu ñu la ca santaat nga war a gën a dolli cant ga ba fa sa kemtalaal kàttan la ca des nga bàyyee ko suñu borom mi nga xam ne mooy motul yéene ab jaam. Euh, fédération ahlu café ko baaxoo defee ci xew-xew yëpp bi ñuy ubbi daara ji liggéey bu mel ni suñ loxo lañ ko tegoon bi koy tàmbali bi mu sottee tam ba ñu war koo daloo euh, sëñ Ahmad Badawi mi nga xam ne moo jiite liggéeyu daara ji moo wool boppam soxna maam Issa Mbacke ahlu kafe Euh, xamal ko ne ko taxawaay ba nga ci daan taxaw taxawaay boobu rek nga ci taxaw ba wowoon nañu fii réunion ñu daje fee kuréel yu mag muy Hizbut Tarqiyyah Touba ci kanam euh, ak waa wilaya ñu tënkoon programme liggéey bi lépp loo xam ne dafa jëmoon ci wàllu kafe gi ak ndox mi euh, ndékki en général lépp ci suñ loxo lañ ko tegoon pour ci site yi nga xam ne ci la yi nekk. ak tam ci peuple bi nga xam ne dañuy wuy si nekk mbooloo moo xam ne ñëpp a ngi ci euh, loolu tam bañ jotee ndigal la dafa sësoon lool ci proxaan waaye defoon nañ benn réunion urgence bi ñu laat dem proxaan ngir loolee nu koy waajale ba nu ko defee tam tënkoon nañ ne lépp lu ñu soxla ci am jumtukaay incha allahu taala danañu ànd ak mbooloo mi fas yéene lañ ca man lépp ñu def ko lu ñu ci bokki taalibe yi appuyé tam ñu boole ko ci liggéey bi euh, noonu rek lañ ko doxee bi ñu bisee proxaan tam noppalu wuñ dañoo ñëw rek démb ci ngoon lañ ñëw installé euh, daam café bi nga xam moo jiite xale kafe gi ñoom fi lañu fanaan taxawal bâche yi indi jumtukaay yi muy euh, barab yi nga xam ne ci lañ war a seggee ñu indi jumtukaay muy euh, liy segg ak ndox meeg kafe geeg suukar seeg basang yeeg bâche yeeg lépp loo xam lu ñu itteewoo la ba ci kopp yi acheté yi lépp fanaan si na biig bi ñu xëyee itam mburu mi ñëw na indi nañ fi lu toll ak juróomi junni mburu yaakaar naa ne nit ñi ndekki nañ ba mburu maa ngi nii seen ginnaaw des eh, di xaar tam ku soxla rek soo ñëwee incha allah fas yéene barkeelu eh, mboolem fu murit nekk itam ci biir daara ji incha allah nañ yéene dina am ay équipe yoo xam danañ fa dem yot leen café bu dee ay góor danañ fa yóbbu équipe bu góor ñu yóbbu fa café bu dee équipe bu jigéen tam danañ fa yóbbu ay jigéen ñu yot leen café ndax toujours fédération Ahlou Café dafay respecté njàngalem Serigne Touba mooy góor ñi jëm ca góor ña jigéen ñi tam jëm ci jigéen ñi noonu daal ba file ak sëriñ bi di ñaan daal fas nañ yéene kafe du manqué ndox du manqué lépp loo xam ne lu ñu teg suñu loxo la incha allah dinañ jël suñu ay responsabilité ba lépp mat incha allah loo xam ne teew na alhamdulilah loo xam ne teewut tam danañ ko jéem a wuti incha allah ba lépp matale ndax aw sas moom bu la ko sëriñ bi joxee rek lii sa ndam mooy nga matale ko ba kenn du ne lañ la joxoon am na lu ci sooxe te loolu mooy baaxu ahlu café te moom lañ fas yéene defaat tey fii ci université bi sëriñ Abdoul Ahad allah jërëjëf euh, sëriñ Abdoul Ahad euh, Dieye ci am solo yi wax dëgg yàlla leeral la yoo xamante ni tam day wane rek ne yoon yi moom euh, yoonu ndigal la ginnaaw bi ngeen jotee ndigal ci Cheikh Ahmadul taxaa ñëw ci barab bi taxaw ko na ngeen ko daan defee wax dëgg yàlla mu daan taxawaay yu am solo tey jii yaakaar naa ku fi si tey jii gis nga ni taxawaay yooyee rek ngeen di taxaw ci ku xool lii ci suñu gannaaw xam ne ne euh, luñ tàmbali la te ba léegi ñu ngi joxe bernde yi ci wàllu euh, ndekki yi waaye itam dafay mel ne ñu ngi taalaat itam Euh, jëmale rek saa soo xamante ne rek murid yi soxla nañ ko rek ñu indi xéewal ak euh, defee ko ni mu ko sëriñ bi bëggee ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen jaajëfal di sant itam soxna maam Issa ci taxawaay yoo am solo yi nga xam ne mu ngi koy taxaw rawatina ci euh, bis bi nga xamante ne tam bis la boo xam yaakaar naa ku ci feeñ dootoon nëbbu ba mukk waaye moom yàlla dafa dogal mu feeñ bu yàgg-yàgg kon ñu ngi koy sant di ko jaajëfal di leen jaajëfal mbokk itam ñu ngi leen di sant itam di leen jaajëfal asalaamaaleykum a rahmatullah